gën jege ay clientam digital store yokk na réseau ubbi showroom bu bees tàq ca Colobane immeuble CMS janoo ak caserne somba Diéry jàlloo digital store di leen proposer gamme bu yaatu ci wàllu électroménager ay téléphone u qualité supérieure ay matériel informatique de dernière génération lépp lu mujjee génn ci informatique fekk leen ko digital store digital store di représentant exclusif moom dong moo fi teewal marque bi di Crosscall ak ay téléphone portable yu mucc ayib dëgër lool ba noppi étanche ñu garanti ko ñett ba juróomi at benn defarkatu téléphone ñemewul garanti téléphone juróomi at digital store mooy yëgal ay clientam ne am na service après vente bu mucc ayib nekk fii ci Colobane nga xam ne dañuy liggéey 24 heures sur 24 am équipe boo xam ne dafay jóge ci place bi dem ba ci seen kër mën nañoo liggéey 24 heures sur 24 fu ngeen ñu soxla ci Sénégal suñu service après vente dafay def tamit ay contrat d'entretien ay contrat de maintenance ba noppi te di leen gunge ci bépp réparation ak entretien yu seeni appareil yi ngeen jënd ba noppi seen partenaire de référence Digital mën nga jokkoo ak ñoom ci 33 840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 من غاد بما بعد كل ولي لغاد البدر سودا من زهزه bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi ñu ngi tey fii ci na wala ñu ne ci réewum Galwaa bu dee dañuy euh, roy sëriñ bi ci ni muy tuddee dëkk bi muy réewum Galwaa tey fi la ñu nekk ginnaaw bi ñu jógee Mayumba doon topp jeexiti sëriñ bi ak Libreville étape bu mujj bi mooy fii ci Lambaréné Lambaréné nag mooy dëkk bi nga xam ne fi la sëriñ bi mujj a nekk ginnaaw bi mu bi mu jógee Mayumba def fa juróomi at yaa nga xam ne wax na ne ca la mel ni ab jant bi mu ñëwee fii nag li desoon ci tukkib géej gi fii la ko jeexale fii ñu nekkoon léegi doon fa waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy kilifay dëkk bi foofa mooy mbaaram mi nga xam ne fa la féete woon li fi nekk lépp lu ci ëpp boobu fa foofa la nekkoon waaye dend ak camp militaire bi ak kër commandant bi dex gii ngeen gis nag mooy dexu Ogooué dëkk bi ñu nekk itam di maanaam làmbara na itam euh, mooy maanaam jëmmi dex gi moo ko xaaj soo xoolee dëkk bi dafa dafa dafa nekk ñetti parti li ñuy wax rive droite ak rive gauche ak île de Lambaréné loolu mooy jëmmi na ci boppam. dex gi itam moom la ñuy tuddee dëkk bi ndax dëkk bi capital provinciale la bu ñuy wax maanaam Moyen-Ogooué Moyen-Ogooué boo boo demee Port Santé la ñuy wax déedéet maanaam Ogooué maritime nga xam ne dañ leen di askanale ci li nga xam ne mooy dex gi bi sëñ bi ñëwee nag nga xam ne ñun mooy li li nga xam ne moo ñu gën a yitteel ñetti at yu manqué yi fi def wax na coono bi mu fi daj tënk na ko ci rek ne. metti na méttiwaay boo xam ne lenn rek moo ko gën a metti mooy ruux gi génn ci yaramam waaye nag nee na teewul yàlla defal na ko fi nag li mu bëggoon di ko wut te mbokkoon ci ñett yooyu yi nga xam ne wax na ne bi muy jógee Sénégal bokk na ci taxoon mu jaay mu jaayante yoonu géej gi mooy xam yàlla ak ku ak kóolute gu gu gu wér a wér diggam ak boromam àgg ci maanaam daraja yi gën a kew ci yaqiin ak maarifa waaye wusuul itam àgg ci yàlla fii nag ci xeetu galwaa ci ci réewum làmbar na ko yàlla mayee wusul googu mooy àgg googu ci boromam àgg goo xam ne eh, day day day sës ci boromam rek doon jaamu bu yàlla bu wér ndax jaamu bu yàlla wax gi day yomb waaye doon gi moom lu jafe la. labay tugal naa leen kooku mag la bokke wala sëriñ si ngeen daa sànq moo leen di jaali moo ci gën di pànk bamba leen du ma ñi ngeen daa sànq wallahi ab dërëm du weccub tànk wa qiila ruba rajulin ka alfin wa ruba alfin xiimatan kawfin ñu woolu la ba yafarom ñu jaaxle ñu ñëw ni delloo leen ko mbaa mbaaxle fii nag la ko yàlla defalee nee bi mu génnee fee ñu jóge muy maayom ba ba ñëw fii la jaayante ak yu bare bari yoo xam ne da koo noon sëñ Moussa Ka wax ne nit ak juróom-ñett la ci mubaaxaat Bàmbaa ko jaayante jëndee karamaat sëñ Tuubaa sax tudd na ko ci téeram boobu di di nga gis saa u shakoor yooyu mu jaayante nag ca la mujjee doon xaritu yàlla di soppeeb yàlla di xarit di soppeeb rasulullah sallallahu alayhi nee na moo tax fii nag fi laa mujjee doon ku ñu teral ku ñu wormaal ku ñu màggal ci kàttanu yàlla ak baaxam waaye réew mi ñi fi dëkk ay xeeti meene la ñu leen wax meene galwaa moo tax Serigne Touba buy tudd dëkk bi sax du tudd Lambarana Galwa lay wax bari na ci bayit yi bayit bi nga xam ne mooy junju li ma doon wax léegi àgg gi ci boromam ne fii la ko defee mooy boo boo ko jàngee da ci fekk lu mel noonu mooy lillahi qad wasaltu inda galwa wasaana nii amma yajurul balwa lillahi qad wasaltu inda galwa wasaana nii amma yajurul balwa جلوى وسانني عما يجوه بلوى لله قد وزد انه دجلوى وسانني عما يجوه بلوى كتابتي قبل لنا البحور كفى الحياة حيال المدحور علمني العلم عند ذايت مما يزه وكفاني الكافرات لم ينهني عند البخور المغرقات داع لحمر أو دواء فاسقات لم ينهني عند البخور المغرقات داع لأمر أو دواء فاسقات ci xii ci réewum galwaa laa àgg fa yàlla waaye fa la samay natt yu dem jeexee mboolem bayit yi muy tudd galwaa yëpp soo ko seetee day day day tudd balwaa bu nee galwaa day wax balwaa nga xam ne ñoom ñaar daanaka dañuy riime mooy natt yi kon fii fii la natt yi jeexee waaye nag lu ne dañ na ko fi nag waaye mujj na yàlla nag fay ko fi pay goo xam ne nag fi la ñaane nag bu delloo Sénégal sant boroomam ci màggal gi moo tax mu ne katabtu yow ma sabti inda galwaa muy fii baada jihaadi wa firaaqil balwaa fii laa binde bisub gaaw boobu bi ñu ci wàccaay wi ci réewum galwaa ginnaaw bi nga xam ne sama jihaad jeex na sama samay nattu jeex na ne danaa delluwaat ci réew ma su ma delloo danaa woote liggéeyub cant boo xam ne dañ sama sama cantu bopp rek du ma doy waaye damay bëgg ñëpp sant la ma ci yàlla muy màggal gi daane suñu borom nag maa ngi dellu waaye maa ngi ñaan sama dellu ci réew ma nag na doon suñu texe te bu ëllëgee nag ñu fegal sawara ijaal rujuwaani ila qawmi saadatana waltak fi naa yow ma jameel xalqi niiraana kon daal xéewalu la lambar na gi daal ku fi ñëw moom incha allahu taala jàpp nañ ne ci barkib Seexul Xadim ak lim fi liggéey ak ak lim fi bàyyi nag ci jeexit yàlla mën na la ko taw feexal nga nga nga nga am ci loo xam ne dana faj sa aaju àddina ak àllaaxira yàlla ñu yàlla dugal ci biir te te defal ñu faju ajo ñun ñëpp ñu mel na daal fekk nañ Serigne Touba fii ci Lambaréné na ko sëñ Modou Lo Dagana defee woon ak maam Cheikh Anta ndax ñoom ñaar fekk nañ ko fii euh, fekk boobu mi ngi waaj mu jox ay mu jox maam Cheikh Anta mool yi mu taalifoo di ci bari ne ko ci ay xasaayit ne ko woon boo boo soo soo àggee na nga ko na ko mool kon loolu itam ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di fasaale ñëpp nag di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. géej day labal géej day labal sëñ Bamba yu borom géej mool yëpp lay napal Bamba du doon géej géej day labal labal labal sëñ Bamba yu borom géej mool yëpp lay napal Cheikh Bamba du doon géej géej day labal day labal sëñ Bamba yu borom géej mool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 ngir gën a jege ay clientam digital store yokk na réseau ubbi showroom bu bees tàq ca Colobane immeuble CMS janoo ak caserne Samba Diéry Diallo digital store di leen proposer gamm bu yaatu ci wàllu électroménager ay téléphone u qualité supérieure ay matériel informatique de dernière génération lépp lu mujjee génn ci informatique fekk leen ko digital store digital store di représentant exclusif moom dong moo fi teewal bi di Crosscall ak ay téléphone portable portable yu mucc ayib dëgër lool ba noppi étanche ñu garanti ko ñett ba juróomi at benn defarkatu téléphone ñemewul garanti téléphone juróomi at digital store mooy yëgal ay clientam ne am na service après vente bu mucc ayib nekk fii ci Colobane nga xam ne dañuy liggéey 24 heures sur 24 am équipe boo xam ne dafay jóge ci place bi dem ba ci seen kër mën nañoo liggéey 24 heures sur 24 fu ngeen ñu soxla ci Sénégal suñu service après vente dafay def tamit ay contrat d'entretien ay contrat de maintenance ba fii di leen gunge ci bépp réparation ak entretien yu seen appareil yi ngeen jënd ba noppi seen partenaire de référence Digital Store mën nga jokkoo ak ñoom ci 33 842 61 38 33 842 61 38 wala nga dugg ci suñu site www.digitalstore.sn